suratul ahzab yàlla defa ne maa jaala allahu li rajulin min qalbayni fii jawfihi benn góor mayuma la ñaari xol te jigéen am na ñaari xol jigéen dana dem ba am ñetti xol jigéen dana dem ba am ñeenti xol xam na am na ku sant ndaw toog ni sëñ bi tey ceebu Dakar yi moo neex <laughs> <laughs> góor benn xol kese la am jigéen dana dem ba am ñaari xol jigéen dana dem am ñett xol jigéen dana am ñeent xol ci biir dundam dana am xolam bu rëcc mu amal beneen xol te xol yi góor bu rëccee dee na góor mënta attan ñaari xol yuuram attanu ko moo tax jigéen am ween ñuy naan jigéen ni weenam sëggee noonu la xelam sëggee déedéet bu jigéen amuloon ween li li xolam yu bëree di laaj yuur bi du ko mën a joxe day ne pof toj mel mel ni benn benn mbàtt bu oto jaar ci kaw yuuri jigéen fi mu toll ak la mu ëmb ak la muy daj te mun koo dékku boo ko tegee góore mu seet ndax xol bu nekk daf koy laaj tel énergie xol bu nekk daf koy laaj tel tempérament xol bu nekk daf koy laaj tel ci climat yëpp benn yuur bu bu koo joxe kooku bu la yàlla dëgëral nooy mel yàlla na ci alquran wa maa wa maa jaalallaahu yàlla deful lii rajulin ñeel benn waay min qalbayni ñaari xol min jaw fii yàlla waay la tudd tuddul kumba de waaw góor waaw kumba yàlla defal na defal ma ko benn benn waay kon yàlla defal na ko jigéen di alquran la man waxuma ko scientifique nañ jaax la anamu mooy jigéen bu ëmbee xolam ak xoli doom muy ñaar mu ëmb ay seex xolam ak xoli ñaari seex yi mu amu ñett doom xolam ak xoli ñett doom yi muy ñeent xol góor bu ëmboon tey rek <laughs> dootu seeti bi abadan dootu seeti bi bi abadan yal na yàlla fay leen seen lii na ngeen ko xam lii na ngeen ko xam mu ngi am ñeent loxo loxo boppam loxo njaboot loxo ki mu ëmb ñeent tànk ñaari tànkam ñaari tànk doomam ñeent bët ñaari bëtam ak ñaari bëti doomam ñeent paxi bakkan yu bosam yu bosi doomam ñeent nopp ñaar yu bosam ñaar yu doomam lu nekk luy benn muy ñaar booba luy ñaar muy ñeent ca booba lii yépp jigéen di ko alimenté bu yàlla di dafa kawar bi doom bi nar a bari kawar yaay bi di am xel ñeeñ foog mu jëli luy dundal kawar bi te mooy doomu taal foog mu jël doom tuuti teg ko ci làmmiñ bu la dafa xel ñeeñ daf koy bëgg a sonnal seet moo mag yàlla rek ñoo yëg ne kii mu ëmb day bari kawar bu toogee xelam di teey muy tufli ndeke doom bi euh, calcaire wala li calcium bi dem ci ci yax ndeke doom bi dafa nar a doon ku dijj ci yax mu tàmbali doom bi dafa war a doon koo xam ne dafay saf nit ñi yaay bi fu mu nekk mi ngi njàmbaar rek mi ngi njàmbaar rek parce que doom bi moo ko laaj bu dul bu dul yaay bi ak yàlla kenn xamu ko waaw yàlla mi ngi defar tey res bi res dafa doon lu chocolat doom bi aajowoo lu chocolat yaay bi dem jënd betterave lekk doom bi fi mu nekk kaani bi yaay bi lekk daf ko sonnal soxla na lu soof tuuti pour mu modéré yaay bi dem lekk nawe mu jafteloo ko mu dem lekk nawe ñu ngi ñu ngi defar wextanam te wextan mooy mariner ni ngay jëlee vinaigre mu mariner salaat boo lekkee wextan dafay toq fukki yoon ak juróom ci loolu ngir mariner ko yàlla ngi dafa wextan bi yàlla lekkaloo ko jaxato dafa wex doom bi ne ko yaay dama wuti jaxato doom bi góor la yaay bi ëmb na xam na nag góor la nu mu koy xamee góor bi bu tàngee dafa war a tàng bu tàngul dafa war a tàng doom boobu càmmoñ lay tëdd ngir xol tàng càmmoñ la nekk ngir mu mun jël ci xol bi yaay bi buy dem pañ buy dem marché bu jëlee pañ rek loxo ndeyjoor la koy jëlee parce que poids baa ngi càmmoñam pour mun a équilibre mu jëlee pois bi ndeyjooram déjà yaay bi xam ne na góor la ëmb te baay bi sax xamul bu ëmbee jigéen jigéen bu tàngee dafa war a tàng ak daf bu seddee dafa war a sedd jigéen bu seddee dafa war a sedd bu sedd dafa a sedd te res moo sedd ci nit kon doom bu jigéen dafay ñëw tëdd si ci wàllu ndey ndeyjoor yaayam ngir jël seddaay boobu la bu juddoo mën a doon ku mokk pooc doon jongoma doon jegemaar waaw kon yaay bi buy jël poids bu rootijee buy jël baag bi càmmoñ la koy jëlee parce que poids doom bi mu ngi ci ndeyjoor bu ko yëlee ndeyjoor day pant du mën a dox mu jële kon xam ne na jigéen la ëmb nan lay xamee ne doom bi jigéen la waaye dafay góor bu tëddee fi ba ci kanam mu tëb ñëw càmmoñ nga gis yaay ne wëy kon doom bu jigéen la doon waaye dafay góor bu ñëwee àddina mi ngi ci bal yi rek mi ngi ci tennis bi rek mi ngi takk ay centre rek bu dee góor bu nar a jigéen la daal di lewet bañ ko naan kii dafa yàmbar bu tëddee tuuti wàllu càmmoñ jël tuuti ci xol dafay daw dem njeyjoor res bi daal di ko laal tuuti kooku bu juddoo dafay doon xale bu góor la waaye ku laccax lay doon kon lii lépp yàlla mi ngi koy def kenn yëgu ko bu dul jaay bàyyi mi ngi tëdd ci kaw lal mi ngi xaran rek kon seetal jigéen ñi muy yëgee lii seetal jigéen ñi muy yëgee lii moo tax euh, góor jigéen ki ko judduwaale du mbonam yaay la ak bàyyi ci biir néeg am na nooy séyee ak nooy tëdde boo juree doom bu dee jigéen la dafay góore bu dee góor la dafay jigéen moo tax li tubaab bi di wane ci télé bu leen ko def bàyyi leen ni maam yi doon wéete ci seen kaw la mooy njiglaay ñi judd dem ba màgg ngir alal ñu doon ay góor jigéen ñooy ñi bon waaye ñele mu neex ne leen faj mu neex ne leen faj ba ñu génn ci loolu yàlla na ko fi yàlla jëlee yaa rabbi yoon yu métti yooyu yàlla na ci yàlla seetal ummatu muhammad eh, sallallahu alayhi wa sallam kon eh, mbir maa ngi nii mooy jigéen lii la ko yàlla defal te ma defal ko góor jigéen fii la ko yàlla teg eh, tegu fa góor maa jaala allahu li rajulin min qalbayni fii jawfihi kon wa maa xalaqa zakar unsa li yàlla doon waat yëpp mooy maqaamay jigéen martabay jigéen jamono dikk tooñ ko ngir ga lewetam ñu koy exploiter di ko jaay naka ni ñuy jaay ay xar boo demee ci civilisation yi jiit ci civilisation yi jiitu ci romain yi ci euh, grec yi moo ñu nekkoon fële Grèce seen capital di Athènes wala bu dee romain yi la seen capital moo nekkoon ko santa ñu changé ko euh, daal di ko def euh, Islamabad ci ginnaaw ñu ne Constant euh, ci ginnaaw ñu ne ñu tuddee ko kii Istanbul Islamabad beneen am na mu ngi ci Pakistan bokkut bi ay tur dañuy jégante parfois gisoo Malaisie Malawi Maldives duñu ñu benn Malaisie moo nekk Asie seen capitale di Kuala Lumpur Malawi mi ngi weti Afrique du Sud Maldives mu ngi ci woon Inde ci boori Sri ngeen déggee ko noonu Hmm? comprendre nañ ko wax bi ñu ñu koy jëli ndànk ndànk xeet yooyu dañ doon jaay jigéen di ko jënd ni jur bu jëkkëram dee ñu tëj ko ci kër gi xale buy jàng jigéen yàlla tere ci moom nga koy jàngee maa ngi jéggalu ci wax bi fi ma nekk moo tax may xaañ ci digg bi am na dëkk bu ma demoon ñu ko tudd Nipal Nipal mi ngi ci kaw Himalaya mooy montagne bi gën a njool ci àddina bi huit mille huit cent quatre-vingts bu jëlee glace bu jëlul glace huit mille huit cent quarante lay doon ci yëkkati boo ci tegeetu neuf kilomètres lay doon benn réew mi ngi ca kaw ñu ko tuddee Nipal seen capitale mooy Katmandu réew moomu jigéen bu jëkkëram faatu woon dañuy gas lu mel ni foos jigéen yëpp toog tàllal seen tànk ñu teg néew ba seen kaw suur leen ñu ngi dund ah li lii dëkk ñu ngi ko Nipal seen capital mooy Katmandou te lii ñu ngi ko tàmbalee bàyyi 1920 1920 amagul téeméeri at ah 2020 lay am benn siècle kon yàgguñ ko bay est-ce que l'islam nangu na loolu arab yi ñoo doon suul seen doom yu jigéen ñu dañuy daw gàcce ak li mu leen di teg ci ay dépenses yàlla wàcce aaya ci sourate Iza Samsu Kuwirat wa isal ay suilat bi ay zanbin qutilat xale yi ngeen di rey bu ngeen taxawee yowmal xiyaamati nga bëgg a jéggi siraat mu poñe la na yàlla sama bàyyi moom a rewoon dana la yey de looy wax keroog kon jigéen dafa l'islam dafa ñëw décoloniser jigéen génne ko ci njaam yóbbu ko ci ngor jémmee ko ci jëlee ko ci ndóol yóbbu ko ci regg jëlee ko ci tumaranke yóbbu ko ci wéttaliku kon jigéen amul xaar ma yàlla ci lislaam lislaam da ko yëkkati daal ko kam-kam la yóbbu ko ci kaw alquran jël na saar lëmm tuddee ko jigéen mooy sóoratu Mariam tawraata ama ko évangile ama ko biibul ama ko zabura ama ko suufi ibrahima ama lislaam moo jël saar tuddee ko yaay Mariama sóoratu Mariama lan ngeen bëggati yaay Mariama am na yonent yoo xam ne juróom yoon lañu ñu leen tudd ci alquran ñii fukki yoon waaye yaay Mariama alquran mi ngi ko tudd fanweeri yoon ak ñeenti yoon 34 fois yaay Mariama di yaay yonte yàlla Isa alayhi salaam lan la bëggati ñi gën a am tur ci àddina bi te seen njaboot des ba léegi mooy ñetti yonant yi yonte yàlla Moussa ba léegi diinaam am na ñu koy topp mooy judaïsme am na chrétiens yi ñoo topp Isa ak musulman yi muy jullit waaye ñett ñi nga xam ne ñoo gën a doon ay ponkal ay kàndee ci àddina bi góor musu leen laal ci yar leen yëpp jigéen la yonte bañ ko ëmbee ñetti weer la baayam faatu ñaar weer jëm ci ñetti kon ku gisul baayam na ko baayam di yare mu ànd ak yaayam juróomi at ci juróom-benn at yaayam faatu ñu jox ko ummu ayman ummu ayman moo ko yore ba mu am ñaar fukki at ak juróom mu jël xadeetu toxu ko xadijatu bi am ñeent fukki at yàlla yónni ko mu am juróom fukki at ak ñaar xadijatu faatu mu gàddaay dem Madina ana fan la góor dugalee loxoom ci Seydina Muhammad amul yoon te yàlla Isaa far moom amul bàyyi sax tey doomu yoon ah Mariama ak Isaa ba Isaa làqu ñu teg ay at Mariama soog a dem te seetal Isaa tey li ko topp ci ay nit passé na un milliard Seydina Muhammad ñi ko topp dem na ba deux milliards tey Moussa naka noonu yaayam kese rek kon ku bëgg a delloo jigéen gannaaw ne ni weenam sëgge noonu la xelam sëgge dafa mel ni bu ngeen jàngee science naturelle garab yi nekk fi gën a wow ci désert bi dañuy am dëkk pour ñu am mën a résister garab bu amul dëkk du mën a résister tàngoor moo tax garab yi gën a métti dëkk yëpp fa ñu nekk mooy ci savane yi mooy ci désert bi gisoo tàndoor na ni cat yi dafay jàng gisoo werek gisoo déggu suuruur garab yi am dëgg yépp pour ñu mën a résister la jigéen bu amuloon woon ween muy déchargé wu température bi ko yuuram di jox du ko jig dafay judd rek dee benn yoon yàlla def ko ay ay ween ween yooyu bën bën yi nekk ci ween bi ci lay sànnee tooke yi ak dangar yi nga xam ne yuur bi mu ngi koy yebal ci biir yaram weer bu nekk mu mun a jigéen kese bu ko yàlla bayoon mun na jur juróom-ñetti téeméeri doom ovule yi nekk ci ndiggam waaye yàlla di ko def règle par mu ëmb rek juróomi doom taxaw wala ñaari doom taxaw wala fukki doom taxaw te loolu néew na ovule yi nekk ci ndigg doomi aadama bu ko yàlla def loon ween rek bàyyi ko ni góor jigéen du doon amati aadama rek moo doon am xawaa sax doon fala mbir mi di yem benn kon bu ñu ween jigéen ni mu sëggee noonu la xelam sëggee déedéet góor doole kàttan xalaat jigéen xalaat pexe kon fi góor yam fa la jigéen tàmbal kàttan doole xel jigéen xel euh, pexe yii nag bu àttane bu àndee rek lépp daadina dina ñooy aw yoon dossier yi gën a métti ci àddina bi jigéen moo ko géré woon naa Muhammad sallallahu alayhi wa bañ ko génnee Màkka fi maamam yépp tëdd mu daw dem Madina benn ca juróom-benn at ba mu gént ne dafa gis dugg na Makka saxaaba yi na ko ah, nañu dem dëgg la li nga wax noonu la mu ne waxuma leen ne ren la de dama ne gént nag ñu ne ko foog ñu dem yow loo gént na noonu la moo tax kilifa bu buñ ko di forcer bu bañee nañ ko di bàyyi ndax xamaguñ ban cause la ban contexte moo tax mu def li mu ànd ak junni nit ak ñeenti téeméer ñii na junni ak juróom-benn téeméer la benn ñëw ba Hudaybiya lu dem ci ay vingt kilomètres balaa ngay dugg Makka waa Makka ne lii duñ ci doo fi dugg mukk ci gàttal coow dem kaw coow dem suuf ñu ne dañuy signé benn pacte bàyyil ba déwén nga ñëw ndax li daf ñuy déshonoré génnee woon nañ ko ànd na doole dugg lan lañ doon bind bokk na ca la bind ngir gàttal ku jóge ci yow bu ñëwee ci ñun duñ ko delloo. nag ñu ko waaye ku jóge ci ñun ñëw ci yow na ko delloo waaye ku jóge ci yow ñëw ci ñun buñ duñ ko delloo ah loolu nag lan la ummu kii ummu daal ko ne ko nangul mu ko yaa ko wax de soxna mu ne ko nangul yonte bi si ñëpp sahaaba yi génn rimoori naan é yonte bi waxu jigéen rek la topp dem na signé pacte fu ñu jëm ku jóge ci ñoom bu ñëwee nañ ko dellu te ku jóge ci ñun bu demee foofu ñoom duñ ko dellu mun ne kaay waxal gaañ ñu mooy tàmbalee di ngat de mu ñëw mu ne ko mu ne damaa xam ne yow Muhammad ku xas a ñam sa mbaax xam sa yiw sa ragal yàlla sa tabe sa yiw ku xas a gëm boo ko delloo dafay doon sa ambassadeur mu tasaaral la foofu diina xamuñ lu ñu def waaw te ku nekkoon ci yow ba xam la du lay bàyyi bay dem ci ñëw nee nañu mbaam bu lekkee lem dafay dee waaw <laughs> parce que euh, lem moo dàq ñax dootul bëgg a lekk ñax te kenn mënta am lu suux fa am ci ndem kenn du ñam Seydina Muhammad di ko bàyyi di dem feneen dossier boobu ci la yonante amee chance demante tàmbalee am am ñuy làqatu di tuub nekk màkk di tasaare diina ñu teg ci ñaareet la yàlla soog a àndee fatu Makka izaa jaa nasrullaahi wal fathu wa raaytan naasa yàlla xuloo na fii diin laay afwaajan kon dossier boobu jigéen moo ko géré woon. bul fàtte abonné bul fàtte abonné bul fàtte abonné bul fàtte abonné